تنال حياة العلماء صنوف ومن نسي كفات الركوع ركوع وتذكره مفاتلك في السجود سجود رجعنا ديال قائما داي تحو wa yustahabu sopp nañ lahu ñeel ko an yuida mu baa mu che an dara min al si jàng yi su ma rakaa topp mu rukon wa sajada tam sujud baada salaam yi mu sëlmalee ku fàttee rukon te ràkk ba sa topp fasoogut dafa wax sujud bay waaye ràkk ba sa topp fasoogut ah, da ngay dëppaat dem defari rukon boobu balaa ngay rukon nag bëgg nañ nga jàng dara ci saar wuñ faatee ndax faatee kenn du ko jàng ñaari yoon da jàng dara ci saar ba pare rukonaat dem sujjootaat bu fekkee sujjootoo nga da ngay sujjootaat soo paree sujjoot baax de salaam maanaam boo sëlmalee nga sujjoot ñaari sëlmal si misaal bu doon dafa fàtte rukon dem ba ci sujjoot mu doon ko fàttaliku dafay jugaat taxaw bu taxawee. jàngaat dara ci sa saar su paree rukkoowaat su paree siggi sujjóot continuer julleem bu demee ba sëlmal mu sujjóot ba salaam bu doon dafa fàtte rukkoo ba sujjóot ba yëkkatiku si beneen ràkk ba jug taxaw ci beneen ràkk ba jàng faate ak ba pare waaye rukkoo gut dafay del dafay euh, euh, jàngaat rek euh, saar dégg nga ba pare rukkoowaat dafay rukkoo wadu koy jàppee ràkk bu njëkk ba nag faateeg saar gi mu doon jàng noonu ma jàpp ne loolu du dara yokk la rek bokkul si julli rukkoowaat su paree mu sujjootaat jugaat nekkaat ci ràkk boobu mu nekkoon continuer julleem bu paree mu sujjoot ba'da salaam maanaam saa yoo fàttee rukkoo te ràkk bi si topp fa soogut da dëppaat defarewaat rukkoo boobu balaa nga rukkoo sopp nañ nga jàngaat dara si saar rukkoowaat continuer soo paree nga sujjoot ba'da ومن نسي كفاتة سجدة واحدة بين السجود وتذكر مفات لكبار قيامي جناب متخوي رجع ندير جاري سنداج توك وسجد آتم سجودكو إلا أن يكون ميمونك خدر ستوغن قبل القيام جك تخوايبا كن فلا يعيد دبامو الجلوس توغايبا دفا سجود بين السجود رجع جك تخوي nekk si beneen rakk fàtte su yootam ñaareel ba nu muy def dafay delluwaat toog parce que ba mu su jootee si si gu toog dooru jug taxaw dafa su joot rek si rek jug taxaw saa muy toog kon dafay delluwaat toogaat su jootaat su joot bi mu fàtte woon jug continuer julleem su paree mu su joot banda salaam dégg su fekkee nag dafa su joot benn su joot si gi toog ba pare dooru jug taxaw su ko fàttali ko dafay rotaat rek sujjóotaat sujjóot bu mu fàtte parce que toogoon na ba pare ju continuer julleem su paree mu sujjóot ba'da salaam loolu lay wax ne lu may mu toogoon jëkk taxawaay ba kon du baax mu toogaay ba bu mën na see ku fàtte sëg di tey ñaari sujjóot xarra norot saa ji wala mi gis ta bu mu toog dafa fàtte ñaari sujjóot maanaam moom dafa jàng fàtte ak saar rukon si gi rek commencé jàngat fàtte ak saar yaakaar ne mu si rakam ñaareelu bu ko fàttali ko norot sujjóot ñaari sujjóot yi mu fàtte woon bu fekkee rukon gu si dégg nga su sujjóotee ñaari sujjóot yooyu ju na ju leen su paree mu sujjóot ban salaam moo tax ma weesu ju dana sujjóot dana sujjóot fii jamee zaalika ci mboolem loolu banda salaam yi gannaaw bu mu sëlmalee kon daal ku fàtte farata ci ab rakk te rakk ba su topp fasoogut ah dangay ngay dëpp dem defari farata boobu wax nañ ni ñu koy defaree soo paree nga sujjóot banda salaam lu may farata gi nekk nekk fatiha bu dee fatiha nga fàtte moom boo xasee rukon rek kooku mënatoo ko defar waaw boo xasee rukon rek mënatoo koo defar ràkk boobu danga koy bàyyi dañ moom danañ ko jàng si kanam waaw bu dee fàtte fatiha te rukon goo xam mën nga ko jàng rek soo paree doo sujjóot dara dégg nga wante zakkara nem fàttaliku a sujjóot a sujjóot baada rafi rasi gannaaw bu mu yëkkatee boppam min rakaati ci rakka alati bi nga xam ne taliha méng na ca tamaa daa na continuer ala salaati si julleem gi wala meer jaata bu mu dellu wa alxaa mu nee na rakaata sawi rakkab jamaj ba wa mu doole rakaatan ab rakka fii mawdia ca barab ba baan yeen jokk sa dégg nga ko taxul foofu rek mën ngaa ku fàtte sujjóot gannaaw bu mu yëkkatee bopp bi ci rakk ba ca topp moom loolu la wax xëy na jël na masalaam ibnu xaasim ci fasug ràkk waaye daal li gën a wér mën ngaa wax ne ku fàtte su jóot ba rukkon ci ràkk ba sa topp boo xasee rukkon rek jeex na mënatoo dëpp di ko defari dangay continue ràkk boobu nga bàyyi su jóot jàppal ne bokkutu su jóot yokk rek la kon bu doon ràkk boobu ràkk bu njëkk la boobu yàqu na bokkutu su julli rakka bi nga nekk rukon ci mooy rakkam ñaareel léegi da koy def bu njëkk rakkam ñetteel bi nga jàngoo faateeg saar def ko bu ñaareel toog fa taaya rakka bi nekk euh, ñeenteel nga def ko bu ñetteel indiwaat beneen rakka muy bu ñeenteel nga taaye sëlmal boo paree nga sujjóot baada salaam dégg nga même bu doon rukon noonu la soo fàttee rukon ba rakk ba si topp fasu rakk ba nga bàyyi ruku bu ko compté si julli gi bokkut si dégg nga bu doon mooy bu mooy bu ñaareel nga fàttaliku si ba nga rukkoo si ñetteel ba jàppal ne rakk eh, ñetteel boobu moom ngay def ko bu ñaareel dégg nga bu doon mooy bu njëkk nga fàttaliku ba nga rukkoo si rakk ñaareel ba jàppal ne rakk ñaareel boobu moom ngay def bu njëkk kon soo fàttee rukkoo it sujjóot yëpp échec boo fàttee rukkoo wala sujjóot même wala faatiha sax ba xas bu dee faatiha la moom boo rukkoon rek raaka ba nga nekk boo xasee rukkoon rek jeex na mënatoo ko dabaatal mooy def mooy dangay jël rakk boobu nga nekk yàqu na hmm? bu ko compter su julli gi jëlal rakk boo nekk bu ñaareel def ko bu njëkk dégg bu ñetteel bi nga def ko bu eh, ñaareel boo doon nekk bu ñeenteel nga def ko bu ñetteel andi beneen soo paree nga sujjóot baada salaam wasle na sujóot qabla salaami qabla salaam foofu wax fa commencé in kaana lem nekk na minal uule yéen si ñaar ak yu njëkk yi waaw boobu ñu tax moom lay gën a rafet wa tazakkara mu fàttaliku ko baada aqli saalisati gannaaw fasoog ñu teelu rakk ba na nag su fekkee da ngaa fàttee farata ba dabaatal ko wees te dabaatal ko bu dee fàttee boo rukkoon rek wees na bu dee rukkoon wala sujóot rakk ba ci topp boo si rukkoon rek dabaatal ga wees na nga yéex koo fàttaliku nag maanaam xaar ba rakkaam ñetteel bi fasu nga door ko fàttaliku nee na su boobaa qabla salaam rek si sujjóot parce que boobaa yokk wàññi foo nga boole ko waaw bu dee rakk bu njëkk bi moo yàqu si misaal nga xaar ba rakkaam ñetteel bi fasu rakkaam ñetteel dañ naa wax ne ne moom nga waroon bu ñaareel rakkaam ñaareel du fàtte saa nga foore jàng yow nag fàttalikoo koon nga jàng faatee kese ndax yaa ngi yaakaar ne yaa ngi siraaka mi tër nga jàng faatee kese bàyyi fa saar ku bàyyi saar dana sujjoot xabla salaam yokk nga li nga yokk mooy rakk bu njëkk boobu yàqu yokk la kon boole nga yokk ak wàññi ci julli gi xabla salaam soo ko yéexee fàttaliku sax nga faa bàyyi taay ndax da nga yaakaar ne bu ñu teel la soo bàyyi taay na yokk bi gën a leeral ci dégg kon saa yoo fàttee farata si ñaari rakk yu njëkk yi xaar ba rakkaam ñetteel bi fasu nga doo ko fàttaliku boo paree na nga sujjóot xabla salaam ndax foo nga wàññi saar yokk li nga yokk mooy rakk bi yàqu ràkk bi nga bàyyi farata moom yàqu na bokkul si julli loolu yokk la ràkkam ñetteel bi da ngaa jàpp na ñetteel la fekk mooy bu ñaareel boo jàppee ñetteel nag faatee rek nga fay jàng booru koyee nag mënatoo fee si guddi jàng saar booru koyee rek jeex na dégg nga booru koyee door a fàttaliku ne ñaareel la xam nga dangay ngay toog fa taaye soo paree da nga suyal salaam ndax saar wa nga bàyyi boo ko yéexee fàttaliku na sax doo far toog taaya ndax da nga la su boobaa ak taaya ak ak euh, li nga yokk mooy ràkk bi yàqu moo tax mu ne wasujada na sujjóot foofu wax waxa fa commencé xabla salaam yi xabla salaam in kaana nem nekk na mene ulieni si ñaar ràkk yu njëkk yi wata mu fàttaliku ko banda aqli saalisati gannaaw fasoog ñetteelu ràkk ba wana sujjoot baada salaam yi baada salaam in lam takun dem nekkut waaw gi bu ko daggoon mu gën a rafet in lam takun bu nekkut mi neen uulayeeni si ñaar rakk yu njëkk bu dee farata bi mu bàyyi ba dabaatal ko wees nekkut si ñaar rakk yu njëkk yi su boobaa baada salaam rek la mën a sujjoot ndax foofu wàññi mënu faa maanaam bu doon rakkam ñetteel bi la bàyyi rukon wala sujjoot fa rakkam ñeenteel bi façon mu doon ko fàttaliku léegi rakkam ñeenteel bi moom la changé def ko bu ñetteel rakkam ñeenteel moom yàqu na ba pare indiwaat beneen rakka def ko ñeenteel taay sama ba pare mu suyut baan salaam ndax foofu rakk bi yàqu rek moo fa nekk yokk la foofu amul xam nga ay saar yooyu hmm? kon bu dee si ña nekkul si ñaar rakk njëkk yi baan salaam lay sujut loolu rek la mën a sujut ndax wàññi mënu faa mënu faa am dégg nga bu doon rakk bu mujj bi dégg nga bu doon si rakk bu mujj bi la bàyyi. Euh, rukon si misaal fekk sëlmalut mën na ko dabaatal fekk waxul asalaamaaleykum mën naa jug jàngaat dara ci alquran def rukon boobu waaye bu xasee sëlmal nag wax asalaamaaleykum mënatul defar rukon boobu kon raaka bu mujj boobu yàqu na dafay jug kabaat dafay kabar kabar rahmaan jug indiwaat beneen rakka remplacé ko rakkam ñenteel bi yàqu su paree mu sujjóot ba'da salaam kon noonu la loolu loolu tax mu ne na sujóot ba'da salaam bu si ñaar rakk yu njëkk yi amaa nag bu fekkee bu njëkk bi rakk bu mujj bi rakkam ñeenteel bi bu dee timis fàtte fa rukon wala sujóot ba sël ma ba mu yàgg mu doo ko fàttaliku moom julli gi yëpp a yàqu amaa bu dee yàggul nag dafay xarmaan ko beneen rakk su paree mu sujóot ba'da salaam dégg nga aw kaanat wala mu nekk maanaam na sujóot ba'da salaam su fekkee nekkul si ñaar rakk yu njëkk yi aw kaan la wala mu nekk minuma si ñaar rakk yu njëkk yi wala zakara mu fàttaliku ko xam naa aqli saa di njëkk façon fasoog ñetteelu rakk ba li ann surata ndax saar ma wala juróo sa ak toogaay bi la muy fu taa fàttagul foofu nag am naa ci wax li gënoon a rafet mu ne aw kaana wala mu nekk minal uula si rakk bu njëkk bi moo gënoon a rafet mu ne aw kaana wala mu nekk minuma si ñaar rakk yu njëkk yi maanaam bu fekkee farata gi mu bàyyi ci raaka bu njëkk bi la waaye avant raakaam ñu teel fasu fàttaliku na ko su boobaa it ba'da salaam rek la mën a sujjóot lu tax muy sujjóot ba'da salaam ndax boobaa raakaam ñu teel bi dana ko changé def ko bu ñaareel te bu ko defee bu ñaareel dana fa jàng saar dana fa jàng faateel saar dana fa toog taaya te saar wi nga bàyyi woon wala taaya bi moo la taxoon di sujjóot qabla salaam kon foofu yi ba'da salaam rek lay sujjóot loolu na su waxoon ne bu nekkoon si rakk bu njëkk yi mu fàttali ko njëkk rakam ñetteel fasu ci lay gën a neex su boobaa baana salaam lay sujjóot dégg nga waaye bu dee rakab hmm, ñaareel bi la xam nga bu dee si rakam ñaareel bi la ko fàttaliku te rakam ñetteel fasoogul kon xam nga du neenal rakam ñaareel bi dafay dëpp dem dem defal ko waaw moo tax lu gënoon ne comme que fii affaire neenal rakk la ñuy wax sujjóot baana salaam wala xabla salaam li gënoon mu ne li gënoon mooy mu wax ne bu dee li sujjóot bi mu bàyyi si rakk bu njëkk bi la waaye avant rakkam te fas la ko fàttaliku dina neenal bu njëkk bi ñaareel bi mu def ko bu njëkk ñetteelu mu def bu ñaareel jàng fa faate ak fa taaya su paree baar saam lay sujjóot waaw mais bu dee rakkam ñaareel bi foofu neenal du fa bu dee rakkam ñaareel bi la fàtte farat te avant rakkam te fas fàttaliku na ko dafay dem defari farata boobu loolu la ñu moo tax li ko mën a mu ne mu nekk min si rakk bu njëkk bi mu fàttaliku ko njëkk façon ñetteelu rakk bi su boobaa baana salaam rek la mën a sujjóot ndax saaro yi dana ko indi si rakkam ñetteel bi ndax fàttali ko ne bu ñaareel la dana fa toogi taaye loolu mooy li ànd surat ndax saaro mooy durus ak toogaay lam yafuuta faatuguñ foofu nag masala moomu dama gis ne bu ñu ko defoon lam yafuutu lam yafuutu badalan min lam yafuuta ci lay gën a mat bu ñu waxoon lam yafuutu bañ koo def lam yafuuta ci lay gën a mat di lam yafuuta gi refan ndax nit mën naa fàtte farata si ñaari rakk yu si ràkk bu njëkk bi waaw nit mën naa fàtte farata si ràkk bu njëkk bi dégg nga ràkkaam ñetteel bi fasoo gut dégg nga te xabla salaam lay sujjóot mu jàng fa saar toog fa mën naa nekk ràkk bu njëkk bi mën nga waa fàtte farata dem ba sa ràkkaam ñetteel bi fasoo gut nga fàttali ko xam nga farata googu moo ko dabaatal kon ràkk bu njëkk bi nee na rek saar bi demagut toogaay bi def nga saar wa def nga toogaay ba te xabla salaam ngay sujjóot loolu moom waroon na ko mën a leeral pour pour pour mbir mi gën a mat loolu noonu lan la maa demee loolu noonu si jullit biral rek la maa demee jullit biral jullit bu ñu war wax ci kaw ni ki gaye la doon julli gaye duñ ko war a wax ci kaw rakk bu njëkk ba fàttali na fa sujjóot fàttali kuut ko si rakkam ñaareel ba ba mu demee si rakkam ñetteel bi jàpp na ne rakkam ñetteel la fàttali kuut ko mu jàngoo Fatiha xam nga rakam itam nank lañ ko war a jàng mu jàngoo faatiha nànk ba mu paree faatiha gi ba war a dal saar rek fàttali ko ne xëy moom kat bàyyi woon na sujjóot sa raaka bu njëkk ba bu njëkk boobu mu yàpp na léegi nee na kon eh, ñetteel bi naa ko def bu ñaareel indi saar wa jàng ko ci kaw fàttee baamuwaat faatiha gi te foofu la la waroon def mooy mu baamu dafa waroon baamuwaat faatiha gi jàngaat ko ci kaw jàng fa saa toog fa taay kuréel moom baal salaam la fii waaye moom dafa fàttee baamuwaat fàttee ko dégg nga bu fàttee baamuwaat fàttee ko jàng saaro ci kaw rukkoon si gi sujjóot taaye fa continuer julleem su paree xabla salaam lay sujjóot ndax bàyyi jim bàyyi biral fàttee te ku bàyyi biral fàttee da nga sujjóot salaam loolu jàng nañ ko ci gannaaw ci téere bi hmm? dégg nga kon li gënoon pour pour mat pour bàyyiloo xel nañu ne foofu tamit jamtalu nag ñu fàtte fa biral si jullit biral waaw jamtalu nag fàtte gu ñu yëg ko fàttaliku ba foofu loolu mën naa nekk moo tax li gënoon mooy li na suróota ndax saar wa wal juluusa ak toogaay ba wal jaara ak biral ga fil jaariyati si jullit biral lam yafutu fàttaguñ pour nit ki bàyyi xelam ne foofu kat boo fàttee fàtte gi wax ko nànk ba sa saar wa da war a baamuwaat fàtte gi biral ko dégg ko mën bu nekkoon mu yëfutu foofu lay gën a mat bu dul loolu rek euh, dafay mel ni ñaari rek ñoo tax ngay suy xabla salaam fekk boobu it mën naa suy loolu xabla salaam dégg nga kon noonu la loolu mooy masal na mu yëfuta soo fàttee farata daal si ab ràkka xaar ba ràkka ba ci topp fasu nga dool ko fàttaliku farata boobu moom euh, ràkka bu nga ko fàtte woon moom yàqu na da koy neenal bu dee da nga ko fàttaliku avant ràkka mi fasu foofu baax na salaam rek ngay sujjóot ndax da ngay jël bu ñetteel bi def ko bu ñaareel jàng fa faate ni nga ko war a toog fa soo paree continuer boo paree nga sujjóot nag da nga ko fàtte euh, dégg nga gannaaw bu rakka mi dellu fasoo ngay sujjóot lu tax ngay sujjóot ndax rakkam ñaareel ba jàngoo fa saar da nga bu ñetteel nga jàng faate kese boobu jeex na jàngoo fa saar te bi nga eh, neenal kooku yokk la boole nga yokk ak bu des ñaar rakk yi mujj yi moom baala salaam rek la mën a sujjóot ak noo ko wëlbët si wëlbët si dégg nga <coughs> waaw wa man sallama ku sëlmal shaakan daa ji sikki fi kamaali salaat ci mat ak juleem ba tala yàqu na salaatoo juleem waxul la nga sëlmal ba pare di sikki saak julli gi mën naa matul loolu yàqul julli loolu wax nañ fi léegi ne boo ci sëlmalee ba mën naa matul da ngay jub almarat mottali ko noonu ngay def ba pare nga sujjóot baada salaam waaye liñ la wax mooy nga dem ba war a sëlmal di sikk sàkk julli gi mën naa motul ba pare nga sëlmal yow da ngaa dem bay taay taay mujj bi yaa ngi sikk sàkk ñett la am wala ñeent ba pare nga sëlmal julli gi yàqu na dañuy sikk sàkk dañoo wax ne boo booy sikk sàkk ñett nga am wala ñeent def ko ñett ñett yi soo pare nga li ñeental ba pare nga sujjóot baada salaam yow yaa ngi sikk sàkk ñett nga am wala ñeent ba pare nga sëlmal yaa ko tey sa julli liggéey yàqu na دين لولا جو وسهو جمج في صلاة القضاء سجلك فاي كسهو كم جمج في صلاة الأداء سجلك جو جوم سجلك فاي مك جوم سجلك جو نيوم جلك جو مو جلك نيو جلك سوقت جلك فاي لما يوقف الوقت بيجي نبون كيف فاي نيار يب جوم بين لش آه، فودي كوجوم يا نيجي رفرك خمال نعاي فاي جلك نعاي جلك سوقت واسيم كوجوم يا رف وسهو جمج في النافلة تي في النافلة كسهو كم جمج fil faridati si jullit farata illa fi sitti masaila lu mooy si juróom benni masala jum ci naafila moog jum ci farata benn la lu mooy si juróom benn masala dana ko leeral kon saa yoo juumee ci jullit naafila xool rek lañ la waxoon ku jum si jullit nga def noonu dégg nga xamul benn teqale moog farata lu mooy juróom benn masala yii di ñëw mooy ban alfaatiha mooy faatiha benn bu nekk dana ko leeral wa suratu ak saar wa sirru ak yelu ñett wala jahr ak biral ñeent wa ziyaada rakaatin ak dolli rakka hmm? waaw soo rukoonee nag dolli rakka ba rukoon waaw wan nisyaanu baada arkaani ak fàtte lenn ponk intaala na mu yàgg na waaw ni waxee fii intaala na mu yàgg na ko wa ziyaada rakka in rakka an ne rukoon na ci rakk mu dolli dégg parce que foofu bu rukoon gut moo mu di ko leeral juróom-benn yooyu la wuteeg farata mu di ko leeral fa mën na see ku fàtte alfaatiha faatiha fi naafila te ci naafila wata zakkara mu fàttaliku ko baada rukoon gannaaw bu mu rukoon tamaa daana continuer wasiyada mu sujud qabla salaami qabla salaam bi xilaafi faridati ci wuteeg farata xëy na guram farata yulxii day neenal tilka rakaata boobale rakka waye zir mu dolli oxra beneen rakka waye tamaada mu continuer waye kon mu nekk sujudu sujudam kama zakarna comme nuñ ko jànge woon fi taariku sujud si ku bàyyi sujud maanaam mosam la ñu Fuuta mooy ñëwaat foofu ku fàtte fatiha ci naafila xaar ba rukon door ko fàttaliku nee na nga ne boo paree nga sujjóot xabla salaam waaye nag xam nga ne masala moom bokkut ak farata ndax léegi ne ku fàtte fatiha ci jullit boo xasee rukon ràkk boobu yàqu na danga koy ñaanal nga remplacé ko beneen ràkk soo paree loo war a sujjóot xabla salaam wala baana salaam soo paree ñu xool bu dee da nga koo fàttaliku gannaaw bu raakaam ñetteel bi fasoo qabla salaam ngay sujjoon ndax bàyyi nga saar comme ni ñu ko waxoon léegi bu dee nag avant raakaam ñetteel bi nga ko fàttaliku su boobaa baana salaam ngay sujjoon ndax raakaam ñetteel bi mën ngoo def bu ñaareel jàng nga fàtte bu dee si ñaar yi it boobaa it baana salaam rek ngay sujjoot moog masal la ñuy futaa rek ku dégg bëri dégg bi moom it lam yafutu gi mu wax noonu na ma ko leerale fee mën nga ko leerale fii mën na ci nekkaat dégg nga man na saar awil jahra wala bilal awil sirra wala yalu fi naafila di ci naafila wala zakara sujuda déet sujud ana yi di ko bi xilaafi fardati wuteeg farat ñett yi da ko boolandoro jàngal na fatiha nu fàtte fatiha ci naafila nu wuteeg farata tey mu ngi lay jàngal saar ak biral ak yelu muy ñeent saar ak biral ak ñoom ñoom ñoom ku leen fàtte ci naafila xaar ba rukon doo ko fàttaliku doo sujjóot dara xam nga bu doon farata la ku fàtte saar da nga sujjóot qabla salaam dégg nga ku a biral ba nga yelu da nga sujjóot qabla salaam ndax wàññi nga ku waroon yelu biral da nga sujjóot ba'da salaam kon foofu farata ak naafila ñoo ci wutee ndax biral ak yelu ak sar duñ sunna ci julli nafila motax ku len fàtte waroo len sujootal bo len sujootalee si julli gi day yàqu man do rek len yeguñ sunna ci ye duñ sunna ci julli nafila loolu motax ken du len sujootal kon ñenti nafila ak fatte wute nañ ci mu ñëw si juróomeel bi yow man qama ku juk ila salisatin jëm si ñetteelu wàkka fi nafila ci nafila fa in tadakkara nem fàttaliku na ko xabla qadru kon yi njëkk fasaru kon ba rajaa na del wasiyata monsieur ban salaam ban salaam foofu moo farata ñoo fa yem moom loolu a ni ñetteelu rakk avant ngay ko da ngay dellu toog bu pare nga suur bu doon farata bu doon suba ngay julli am na ñetteel rakk avant ngay rukoo nga toog boobu taaye salaam kon foofu farata naafila ñoo ñoo ko bokk fu ñu wutee mooy way naqare nem fas na asaalisa rakam ñetteel ba tamaata na continuer wazaada mu dolli arrabiata rakam ñeenteel wasajada mu seen qabla salaami qabla salaam bi xilaafi fardati wuteeg farata fay noo bu doon farata yarjon day dellu mata zakara saa yu ko fàttalikoo wasajada mu seen banda salaami gannaaw mu salmali naafila la mu am ñaar rakk jug andi ñetteelu rakk barkon door a fàttalikoo ne moom kat yokk na ñetteel rakk nu muy def dafay continuer def ko ñeent ndax naafila am na ñu koy jokkale def di ko def ñeenti rakk suba kon na continuer def ko ñeenti ñeenti rakk ngir sàmmante ñu wax ne loolu mën naa nekk hmm? waaw waaye nag bu paree dana sujjóot xabla salaam lu tax foofu muy sujjóot xabla salaam jamtalul ne jamtalul na ne bu fekkee taaye wutoon kon bàyyi taay gi moo waral muy sujjóot xabla salaam waaye it sëlmal gim bàyyi rek sëlmal googu it mën naa tax mu siyal xabla salaam kon xam nga foofu wuute na faak farata bàyyi sëlmal farata la bàyyi farata farata kenn du ko siyóodal hmm? xam nga farata kenn du ko siyóodal lañ jàngoon si julli farata waaye fii julli naafila la ku fi bàyyi farata muy sëlmal da nga ko siyóotal xabla salaam te boo xoolee ñaari làkk boo waroon na faa sëlmal sëlmalu kon bu dee bàyyi na fa taaya bàyyi fa sëlmal ñaari sabab yi war tax mu war a sujjóot xabla salaam am na mooy taaya bi mu bàyyi sëlmal bi mu bàyyi bu dee sëlmal gi rek la fa bàyyi waaye taaya na ba koy def raakam su paree mu sujjóot xabla salaam ngir sëlmal gim bàyyi kooku na si waaw kooku nag wuti naag farat ndax bu doon farata ah, rukkoo rukkoo wuta si yem saa yu ko fàttalikoo rek dafay dellu bu pare mu sujjóot mu sujjóot dégg nga mu sujjóot ba'da salaam dégg ndax dafa yokk dégg nga bu doon farata noonu lay def dégg nga loolu tax mu ne fay noonu bu doon farata yàlla ma daal dagg saa yi ko fàttali ko wasjud mu sujjóot ba'da salaam bu doon julli suba am ñaari rakka jug andi ñetteel rakka ba rukon boo ko fàttali ko da ngay delluwaat toog ba pare taaye ba pare nga sujjóot ba'da salaam wute nañ foofu mu def benn. mooy fàtte farata foo dégg ponk farata lañ si namm waman nasiya ku fàtte ruknan ponk a naafilati ci naafila ka rukon yi comme rukon awi sujoot wala sujoot wala mi tazakkar te fàttaliku wut ko hatta sallama ba sallama wa taala tam yàgg fala iadat déet baam alay ko bi xilaaf farata fa bu doon farata yuiduha dana ko baamu abadan ba foofu dafa fàtte ab farata ci naafila mu misaal comme rukon wala sujoot du faatee bu doon faatee moom leeral nañ ko nañ koy defee xaar ba sëlmal ba mu yàgg mu doon fàttaliku ne man kay ba may julli naa fi bàyyi naa faras nu muy def kooku du jëru mu koy baamuwaat bu doon faatee sax mu fàttaliku ba mu yàgg mu ko fàttaliku jëru mu koy baamuwaat kon saa yoo fàttee faral si naa la ba mu yàgg nga doon ko fàttaliku jëru mu koy baamuwaat waaw bu doon faatee nag moom. boo recoin boo paree mën ngaa sujjóot xabla salaam mais yii moom recoin ak moo ko faral ni ñu ko waxoon julli faata ko wax ci naafila dégg boo ko fàttee ci naafila da ngay nee ku fàtte farata ci naafila xaar ba ba mu yàgg mu ko fàttaliku julli gi yàq julli gi baax na jëru mu koy bu dee dafa sëlmal yàgg woon nag mu fàttaliku ko na jàpp ne ràkk ba mu bàyyi farata yàqu na mu jug remplacé ko beneen lakk comprendre bu dee yàggut mook farata benn la ci doon bu yàggee rek lay wuteeg farata dégg moo tax mu ne bi xilaaf fële wuteeg farata fële ko baax ma am boppam bu doon nga fàtte mm, farata dégg nga ponk ni ki rukon sujjóot ak yooyu ba mu yàgg nga doog a fàttaliku julli googu yàqu na da nga koy baamuwaat lu mu yàgg-yàgg wa man xataa ku dagg a naafila te naafila amidan daaji tey aw tarak wala mu bàyyi mina ci naafila rakaatan ab raka aw sajdatan wala ab sujjoot amidan daaji tey aada naka ba mu abadan ba faw ku fàtte naafila fekk moo ko ku dagg naafila kon fekk moo ko tey wala mu bàyyi benn rakka wala ab sujjoot wala ab farata maanaam ci naafila fekk moo ko tey parce que baamaan faw parce dafay caaxaan dégg nga wa man ku bébbali fi salaati yi si julleem fala cheya déet dara alayhi di ko war illaa an yantiqa lu mu tudd bi xarfin ci xaraf dafa bébbali si julli dara nekkut waaye dana dëpp gémmiñam loolu waxoon na ko ci gannaaw hmm? lu may mu tudd xaraf nag bu tuddee xaraf ñu بوكو تاي نسيو با سلام بوكو تاي جي bu ko واذا julli gi yàqu na wasa saa nim jamañ na alimaamu ilimaan bi naqsin si wàññi aw امام wala dolli sabaxa na sabal bi si mu مامومي maamam imaam bu juumee wàññi wala mu dolli naka pour mu xamne dafa wañi wala mu xamne dafa doli lolou lay jëlee wasa qaama bu jugge imaamu ko sa ilimaan min rakkaatee ci ñaar rakka fa sabbix na nga sàbbaal bii ci moom imaam ñaar rakka la am jug taxaw kon wàññi na waxoon na na nga ko sàbbaalee kon kay sàbbaal ko sàbbaal ko mel nga wax ko subhaanallah fen faaraxan boo gisee moo ne ko lii moo tax moo ko li mu ci bëgg wax nii fen faaraxan nam tàqali koo nag al adda suuf si fat baaw na nga ko topp <coughs> topp imaam nag ñaar rakk la am wàññi na jug taxaw te taayawut subhaanallah bu fekkee gis nga ne ñaari xoom yi ak ñaari loxo yëpp jug na topp ko dégg nga dama topp ko parce que boo xasee jug jurum ngay toogaat li gën mooy nga continuer bu pare nga suur xabe salaam topp ko bu imaam suur xabe salaam nga suur xabe salaam ànd ak moom kon imaam danañ ko topp si wàññi waaye duñ ko topp mukk si dolli saa yoo ko toppee si dolli sa jur yàqu na waaye wàññi moom danañ ko si topp comme misaal mi wen jalasa nem toog na fil ula si rakkam njëkk bi aw fi saalisati wala si rakkam ñetteel bi foqum nanga nga jug wala tëjli sabul toog maamaan ak moom imaam bu fekkee dafa toog si rakk bu njëkk bi loolu yokk hmm? boo toogee su julli yàqu na wala mu toog si rakkam ñetteel bi bul toog boo toogee su julligi gi na léegi bu dafa toog si rakk njëkk bi jàppee ko bu ñaarel yow noy def jugal taxaw sabbal ko bul tok de da nga jug taxaw sabbal ko bu bañe nga xaar ko rek ba mu fekk ci la ci rakam ñaarel mom moom buubaa kon rakkab ñaareel bi lay jappé bu bu ñettel wa rakkab njëkk bi la toog jàpp ko bu ñaarel fekk muy bu njëkk yow mo rakam ñaar da koy jappé bu ñettel yow do fa sañ tok toog taaya te nga ne moy bu ñaarel parce que imam togu kon top nga ko ci wañi waye top ko si yokk parce que foofu da nga waroon toog taaya imaam toogul rek toogoo waaye ba mu yokkee toog si raaka bu njëkk toogoo woon kon raakaam ñetteel bi bu imaam bi mooy bu ñaareel dëgg-dëgg moo war faa toog nga jug moom boobaa bu andee bu ñetteel dana fa toogaat yaakaar ne mooy bu ñeenteel yow tamit bul toog jugal sàbbal ko bañee nga taxaw bu sëlmalee nga continuer su julli andi bu ñeenteel boo paree nga toog taaya sujjóot xabla salaam lu tax nga si boole yokk ak wàññi loo yokk toogaay imaam yi saa yi imaam yokkee rek soo yokk la loolu jàngoon nañu ko si gannaaw imaam toog na saraka bu njëkk bi toog na saraka bu yokk la loo wàññi taaya bi parce que taaya digg bi imaam toogut fa taaya rakam la ko jàppee fekk mooy bu ñaareel hmm? imaam toogut fa yow kon tamit kon wàññi nga taaya digg yokk nga toogaayu إمامي تكوي أكو واني قبل السلام غي سجود مثلا ممنون له مثلا مية تمين تفني روبي وين سجد لم سجود نك وايضا بين سجود وترك مباي الثانية سجود من على الوفصل بيانا غصاب البيت مم ولا تقوم تبولجك ما وعندك مم إلا أن تقافل وين غرقل هقد ركواني فصل ركوان بكون فتبع من الكتب وقال الإمام درين كتب سواني ولكن كتب سي يوكو wala tajlis te bul toog baana zalik gannaaw loolu imaam laa fi saaniyatin du caageen si ñaareel bi wala fi raabiatin du caageen si rakam ñeenteel bi fa ida sallama bu fa fa zid na nga dolli rakaatan abaka oxra beneen badalan remplacé wala wecceeko ko min rakaati si rakk allati bi nga xam ne alxaytaha neen nga ko baaniyan jokk ko sa wa tasjud qabla salaami qabla salaam ndax da boole yokk ak wàññi <clears throat> imaam dafa sujjóot benn sujjóot ah ci ràkk bu njëkk bi bàyyi sujjóotam ñaareel kon ma ngay wàññi waaye nag bu ko topp da ngay toog sàbbaal ko bu bañee toogal rek boo ragalee na nag imaam nar naa rukkoon ci ràkkam ñaareel xam ràkk bu njëkk bi la bàyyi sujjóot nar naa rukkoon si ba jugal topp léegi bu toogee si ràkkam ñaareel ba ci daaya yow bul toog taaya parce que ràkk ba nga bàyyi sujjóot moom yàqu na laaka bi maam bàyyi si jóot yàqu na kon laakam ñaareel mooy bu njëkk bu fa toogee di taaya yow bul toog taaya dégg boo toogee taaya su julli gi yàqu ndax yaa ngi topp si dool dolli jàppal imaam danañ ko topp si wàññi waaye kenn du ko topp si dolli boo ko toppee si dolli nag kon bu toogee si raakam ñaareel di taaya jugal taxaw dégg bu ñëwee si raakam ñetteel bi du fa toog taaya te pourtant yow moo doon sax ñaareel mooy bu ñaareel dëgg-dëgg ndax rakk bu njëkk dafa yàqu mu dem ci rakkam ñeenteel bu toog fa di taaya parce que boobu bu ñetteel la bu sëlmaree nga andi beneen rakk remplacé ko rakk bi yàqoon su paree nga taaya sujjóot xabla salaam lu tax ngay sujjóot parce que yow taayoo taay digg ba léegi rakkaab ñaareel ba imaam bu ñetteel la ko jàppee te wut fa taaya te bu fa toogu taayoo suñu fa toog kon daal imaam dañ ko topp si wàññi waa duñ topp si yokk kon toogoo fa taaya comme que bàyyi nga taaya imaam it toog bi mu toog si euh, euh, raka bu njëkk boobu yëpp yàq kii la yokk la raka bu njëkk bi mu neenal bi nga xam ne neenal nga jàppal na loolu yëpp yokk la bokk si julli naka noonu toog bi toog si euh, rakab ñetteel bi jàppee ko bu nu tudd rakab rakk bu njëkk bi jàppee bu ñaareel ak bu ñetteel bi jàppee ko bu ñeenteel bi yëpp yokk la kon imaam toog na si rakk bu njëkk bi toog na si rakk bu ñetteel bi am na rakk bu yàqu yooyu yokk la wàññi bi mooy taay digg bi nga xam ne euh, fokk imaam def mooy rakab euh, euh, nu mu tudd fokk imaam def waru koo def parce que mooy rakab ñetteel bi dégg hmm? waaw yow yow mënoo fa toog mënoo fa toog taaya dégg waaw imaam rakab ñaareel ba moom toogu fa taaya toogu fa taaya taaya digg bi ndax yaakaar na ne bu ñetteel la fekk boobu mooy bu ñaareel dégg nga kon foofu da ngay boole wàññi ak yokk dégg nga kon loolu la mu baamaar ku mooy ràkk bu njëkk bi imam bàyyi na fa sujjóot nga toog sa baax mu bañ nga jug topp jàpp ni boobu baaxul rakkam ñaareel mu toog fa taaya waru faa taaya boobu bu njëkk a yokkal rakkam ñetteel ba waroon na faa toog taaya toogut fa toogut fa taaya hmm? Hmm? kon wàññi nga foofu taaya raakaam ñeenteel mu toog fa taaya te fekk mooy bu ñetteel kooku yokk la hmm? bu sëlmalee nga indi beneen raak remplacé ko bu yàqu boo paree nga si yokkal salaam ndax taaya digg bi nga waroon def imaam defu ko si bu njëkk ba la ko def ah te toog na si bi toog na si raak bu njëkk bàyyi na taaya digg raak bi yàqu yokk la kon yokk la ñetti yoon ba pare wàññi su boobaa war ngaa si yot xabla salaam boo mottalee julli gi defar dégg loolu lay wax foofu nee na fen kuntu mu ngeen nekkee jamaatan di mbooloo ci masala mii fal afdal lëgën lakum ñeen leen an tuqaddimoo ngeen jiital waaye leen kenn yu timm mu matale bikum seen bu dee nag mbooloo ngeen masala mi demee nii ba imaam sëlmal jiital leen kenn rek mu mu andil leen ràkk bi des ba pare sujjóot xabla salaam yéen ñim ngeen topp ko wala zaat nem dolli na al imaam ilimaan sajdatan saalisatan sujjóotam ñetteel fa sabbix na nga sabal bii si moom waaye wala tasjud bul sujjóot maa ànd mooy imaam bu yokkee sujjóotam ñetteel sabal ko waaye bul sujjóot ndax imaam kenn du ko yokk yokk topp si yokk boo boo sujjóotee ànd ak moom julli gi yàqu na wa ida qaama nam jur na al imaam ilimaan ilaa xaamisatin jëm ci rakkab juróomeel tabi moom na ko topp man tayaqana ko wóolu na muujiba ak waram aw shakk wala mu sikki fii si moom wa jalasat na toog man tayaqana ko wóolu na ziyaadata ak dooleem fan jalasa nem toog na al awalu ku njëkk gi te mooy ku wóolu ak waram wala mu sikki si wa qaama mu jug asaani ku ñaareel ki te mooy ku wóolu ak doolam ak dooleem ba tala yàqu na salaatoo julleem imaam dafa am ñeenti rakk jug andi juróomeel rakk maamoom dañuy taxaw maam nañ ko sabbaal képp koo xam ni wóor na ko ne imaam li muy def noonu la wala boo lu ko leer nga continuer bu ko wóoree ne imaam li muy def noonu la jëru mu koy sabbaal na topp rek imaam dégg bu si sikkee sàkk na sabbaal bu imaam continuer ah mu continuer topp ko hmm? dégg nga ñaar ñi ku si toog sa julli yàqu képp koo xam ne wóor na ko imaam dafay li muy def noonu dafa am ràkk bu yàqu moom lay remplace wala mu sikki sàkk bu buñ toogee <coughs> toppuñ imaam julli gi day day yàqu dégg amma koo xam ne wóor na ko imaam dafay dolli waaye ràkkal juróomeel bi dara warulu ko amul benn ràkk bu yàqu imaam moo dolli rek si si julli gi kooku moo gën a am problème kooku moom day toog du ko sañ topp bu toppee imaam julli gi yàqu na waaye nag bu toogee na sàbbaal imaam bu ko sàbbaalee imaam andi rakkab juróomeel sëlmal waxut ko dara julleem baax na waaye imaam bu andi rakkab juróomeel ba pare sëlmal ne ko daa am rakk bu yàqu moom laa doon remplace soo waa moom si moom julleem day yàqu bu fekkee sàbbaalul imaam tamit julleem day yàqu kon ki nga xam ni wóor na ko ne imaam dafay dolli ñaari condition mooy tax julleem baax mooy mu sàbbaal ilimaan ak it imaam sëlmal te waxut ko dara waaye bu imaam sëlmalee na ko dafa am rakk bu mënoon am place moo tax moo ñu rakkab juróomeel te moom toppul ko ndax jàpp na imaam day doolu julleem yàqu la bu fekkee it imaam wax mu sew la sàbbal fu mu yàqee na si ku njëkk mu taxaw asaani ku ñaar rek ba tal yàqoon sëlmal na al imaamu ilimaan qabla kamaali salaati njëkk mat ak julli gi sabbaax na sabbal bii ci moom man xalfoo ñu nekk si gannaaw imaam bu sëlmalee te julli gi matut na ko nit ñi sabbal waxoon na ko bu fekkee dafa wàññi wala doole na ko maamu mi sabbal ñetti rakk la am nañ ko sabbal fen sa daxoo ni mu dëggal na sabbal googu kambala na mottali salaatoo julleem wasalee tam si jot baana salaami gannaaw mu sëlmalee bu imaam na bu ko leeree ne li ko wax dëgg la julli gi matut bi des su paree mu si jot baana salaam ndax yokk na lu mu yokku mooy sëlmal gi mu sëlmal su julli gi matut mooy shakka nem sikk na fi xabar yi ci xibaaru aji saba ji saala na laaj at leen ñaar ñu màndu wajaasa dagan na lahuma ñeel na ñoom ñaar alkalaamu wax fii zaalika ci loolu bu fekkee imaam dafa am ñetti rakka daal di sëlmal maamoo mi sàbbaal kenn ci maamoo mi sàbbaal ko imaam daal amul lu ko leer sikki sàkk leeru ku ne ko li maamam bi wax dëgg waaye leeru ko yi ndax moom li mu def noonu la wala déet si gën a sàkk naa laaj ñaar nga li imaam li waa ji wax dëgg la wala bu buñ ne ko dëgg la mu jug mottali julli su paree sujjóot mu baada salaam buñ ne ko dëgg mu jàpp ne noonu la julli gi mën na yaa ngi dégg hmm? wayn tayaqana nem wóolu na alkamaala man nag amila na jëfalaa yaqini ci kóoluteem wa taraka mu bàyyi alaadlay ne ñaar ñu maanu ñi ilaa nekk sol lu muy mu bëri annaas nañu xalfoo ci gannaawam kon fayetug na bàyyi yaqini wa kóoluteem tam dellu ilim jëm si ñoom dee imaam dafa am dafa sëlmal maamoom mi ne des na imaam daal na ko ne moom mat na ñeenti rakk la maamoom jàpp na ne ñeenti rakk la imaam moom wóor na ko ne ñeenti rakk la mat na jërul mu leen faale na kon na na dem rek yoonam moom jàpp na ne mën na moom jeex na dégg waaw maamoom ni ñuy def képp koo xam ne jàpp nga ne matut mën nga andi beneen beneen laaj hmm? ndax léegi jàng nañ ci gannaaw ñi nga xam ni jàpp nañ ne imaam seen julli gi baaxut am na luñ ci bàyyi ah dañoo dañuy dañoo dañoo remplacer bi nga xam ne imaam yàq na ko yow nag bu la wóoree ne imaam ñetti rakk la la julli nga sabal ko imaam tamit jàpp ne moom ñeent rakk la amul ci sàkk imaam mën naa dem yow nga mottali te du tee ñaari hmm? moom matal na nga jàpp ne rek noonu la jolu muy laaj sa ñaar ñu maan noonu seulement rek dem yoonam yooyu bu la xóoree ne dafa wàññi ah jugal mottali ba pare nga sujjóot baada salaam yooyu mottali waaye imaam bu dee mbooloo mu bëri ñoo nekk ci gannaaw ñu sabal ko mu jàpp ne moom mat le na te mbooloo mu bari ñoo nekk si gannaaw bu mu bu buñ ko sàbbaalee bu mu dem yoonam na jug mot na na laaj ñaar ñu maandu ñooñu parce que mbooloo mu bari du ñu ànd juum bu ko ñaar bu ko ñaar waxee na ko wax na dëgg mu jug mottali su pare su ban salaam di la jàpp ne mat na su fekkee mbooloom lañ na ko déedéet dafa juum ah mu woyee korité dégg ndax mbooloo mi kat la ñuy wax moo gën a mat kon fii boo xoolee ñeenti masalan fi imaam dafa sëlmal ñu sàbbaal ko mu wóor ko ne lañ ko sàbbaal noonu la dafay jug mottali ba pare bi imaam dafa sërmal ñu sàbbaal ko mu sikki sàkk dara leeru ko si na laaj ñaar ñu maanañu luñ ñu ko mu jàpp ne li mu def noonu la moo juum na jàpp rek ne li mu def noonu jërul muy laaj kenn ñeenteel bi imaam dafa sërmal ñu sàbbaal ko mu jàpp ne li mu def noonu la waaye ñu nekk si gannaawam dañoo bëri foo mu laaj ñaar ñu ko mu jëfee ko bi alhamdulilahi ci sant yàlla alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di ñaan képp koo xam ne déglu na téere bi mu ñaanal ñàlla ak njub ak ak tawfiq di jéggalu borom xel yi ak borom xam-xam yi ci rëcc rëcc yi moo xam rëcc rëcc làmmañ la wala rëcc rëcc gàtt xam-xam la ak lu ci mën a doon rek ñu ngi jéggalu képp koo xam ne gis nga ci loo xam ne lu manqué la na ko defar ndax tasaare xam-xam moo ñu tax a jub nga koy tosaare xam-xam nag waroo waroo réeral kenn kon lépp loo xam ne njumte la ah ku ko gis na ko corrigé hmm, bu ñu wooyee wax ñu ko ñun danañ ko changé dégg nga moom it bu ko mënee corrigé ak manière am na ko def noonu lu ci njub ñoo xam ne ci yàlla ñun duñ dara dañuy dañoo xiir rek ci xam-xam bëgg koo joxe moo tax ñu liggéey bi incha allah rabbi mbooleem téere yëpp fas nañ ko yi ñuy jàngale yëpp fas nañ ko firi jox ko mbokk jullit ñi ñu jëriñu ci wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa rahmatullahi taala wa barakaatuh